làmb ji yaa fi meñ soo bëree daan fi nga jógee fi nga yegg si dëgg dëgg doo seen maas kan mooy ama neex ama neex ama neex am ama neex la rek ñu dëkk tëngee rek doon lutteur donc bon doon lutteur et puis di bëree doon xale tuub bi ma am yàlla moo ma ko jox kenn ku suñu borom samay waaju ma ñu nekk sama ginnaaw dëkk tëngeet ak ak mbaaw donc ñi nekk ci ay xale la doon lutteur daal di bëri daal di saako gën ñaan rek. Hmm, ban tur nga wutal sa bopp ci làmb ji. ama neex ama neex kese. requin de bi nag kon. waaw requin de hmm. man requin de hmm. d' accord kan nga kañ nga commencé sa carrière mbër. am 2003. 2003 2004. laa commencé sama premier sama premier combat quoi. Mhm. en même temps maa ngi doon bëre mbapat. Mhm. di ko fay ba tey 2012 2013. Mhm. waaw léegi mën nga ñu wax si sa palmarès tuuti. waaw sama palmarès. bari na bariwul. Eh, am na 19 komba deux défaites laa am 19 combats deux défaites laa am. ndax 2005 bi may bëree 2005 sama deuxième combat maa ngi bëreex ñu laan ñuy wax Wally Sène Wally Sène laa bëre jour boobu euh, kii moo doon bëre grand combat bi Jos Balla Diouf 2005 Jos Balla Diouf moo doon bëre grand combat bi Papa Sow bëre deuxième combat bi Modou Lo bëre quatrième combat ma bëre premier combat 2005 waaw ci laa daane nag déclenché di bëri ndànk ndànk di bëri ndànk ndànk ba egg nëw yi ma egg ñaan sant yàlla rek waaw wax wax nga ne am nga ñaari defet te si defet yooyu sax la ñuy ndax sa dernier combat bi Ama Baldé nga Ama nga ko te daf la ci daan mhm. daan ban nga ci am waaw euh, euh, daan en plus defet boobu daf ma yee si daf ma gën def mbër ndax defet dans quinze jours si laa dem voyage dem dem day gën a sàkkuwaat xam-xam. waaw dinañ dellu si sa voyage boobu waaw. Hmm, ñu dem foofu di gën a xam-xam di ñëwaat Sénégal. non expliquer sa daan bi ak maman. daan bi daaw daan na ma nangu naa ne daan na ma. li ma la wax rek ci bëre mooy daanu et puis xam nga dañuy ay jàngat la rek defarwaat ay préparé waat si lépp daal. ngi leen di dencal pour mën leen a bégal pour ñu mën a fàtte defet boobu. waaw am combat daan rek dóor daan loolu rek laa mën a def si ñiir nga ñoo topp sama ginnaaw di sonn ma teel sama assemblée générale gën a sàkku ñaan préparé daal yàlla dimbale ma suturaal ma am combat daan loolu daal lay ñaan ama nekk ak encadrement am seen diggante la waaw encadrement bi saa ñu jotee saa ñu jotee àddina moom lépp mënul nekk rek na teg noonu dañ ne boo na rek teg wala yoon boo rama nga rama ñun saa dañuy réeroo réeroo moom mënu ñàkk ci doomu aadama mais nag ba après ngay expérience pour pour préparer say préparer ama neex mu ngi soog a jóge États-Unis voyage bi nga defi joon États-Unis lan moo ko waral. Euh, mooy li ma la wax rek defet bi moo tax ma dem États-Unis xëy na yàlla si moom la ko jaarale bu ma daane lay dem États-Unis si laa dem États-Unis gën a dem jàngwaat bëre gën a jàng boxe def musculation gën a sàkkuwaat xam-xam daal gën a yokkaat sama doole. wàccewul day day pete mu dem états naa fa 4 mois maa ngi doog a ñëw eh, may ñaan yàlla yàlla may ma ko ma mën a delluwaat préparé si waat donc foofu jàng nga fa lu bëri waaw jàng naa fa lu bëri du loolu loo jàng na da ngay taxaw si bi wala si média yi wax da ngay bàyyi ba am combat rek appliqué loolu jëf loolu ñuy doog a xam ne yow mii li nga jàngi woon am nga ko daal. ma gis lu ci ay photo yow ak Ness bi nga nekkee états uni ak yeneen mbër. seen diggante nan law fa demee woon. waaw man ak Ness euh, ku xam xam na ay doomu ndey lañ bàyyi ma ñoom ñooñu yëpp bu nekkee États-Unis maa ko fa jiit bu ñëwee maa ko dalal ñu nekk New mon ñu doon ay julit dëkk Sénégal ñu dem foofu sàkkament bu nekkee Sénégal benn lañu doon kon mu démé Amérique dañ wara gëna mëna doon benn nekk fo New York di and dem entraînement lool mo waral sama digënté waaw amaneex souvent dañuy gis ne mbëri bu ñu jógee extérieur dañuy gëna a yokk volume mhm. ndax dañuy doppewu wu gaay nee dañuy jël ay doom yu ñuy naan genre yooyu mais yow est ce que yow mas nga wu est ce que yow gëm nga affaire boobu non gëwuma ko gëwuma ko ndax bi ma demee gis naa yoon boo ko gis naa pour nga def ko gis naa xam naa fi ngay jaar kon donc am na loo xamante ne ko su ma sant mayu ma loolu quoi ndax dama am staff ma demee foofu amaamee dem waxtaan nañ ci mu ne ma carrément am koy jël amul njëriñ lii war mooy nga dem entraînement naturel jàng li ngay jàng ñu gisee waat daal si jàmm. waaw ñuy faral di dégg ne. milieu lutte bi dafa nekk milieu boo xamante ni milieu bu doy waar la. Mhm. est-ce que mës nga si dund loo xamante ne lu la metti la wala lu la neex la loo xamante ne doo ko fàtte ba ba ker ba ngay dee. waaw métti na ma kañ mooy suma kooma Ama Baldé rek mooy suma kooma Ama Baldé li li ma si daal métti na lool ba léegi dama koy métti lu ndax dafa am ñoo xam ne dañ si waroon a jàpp waruñu si jàpp ñu jàpp loolu moo waral mu dem moo tax mu métti ma la ay clan yu nekkoon si biir moo tax loolu moo tax mu métti ma loolu moo gën a métti. Mm-hmm. mais expliqué ñu. non jaru ko amul problème passé na xam nga mënoo ñàkk ba pare di ñànki loolu moo tax daal damay góor laa moo tax. mais lan nga si am lu la si gën a neex loo xam ne aussi doo ko fàtte bi nga kamay sa carrière ba léegi. a yemale woon a yemale ñaari mbër yu bëri dañu war a yemale publicité bi moolul jaarul yoon yooyu daal moom laay wax daal. Mm. waaw mais nag lu la dal benn yoon dootul la dalati daal wala bu la dalatee rek cuune nga. Mm-hmm. mais fi mu nekk nii fi fan yi ñuy dëgmal saison bi day paree tijji yow nan nga koy préparé maa préparer préparé suma manager bu may doxal ñu ngi dox sama benn combat ak benn mbër mais jarul ma koy wax mhm. ndax bu ñu suñu daal ak ban promoteur non pour bàyyi noonu rek mhm. léegi day fan rek day jël sa aha waaw wax nga ñu ne bi nga duggee si lamb ji ak léegi depuis 2005 la mhm. lan la bu lamb ji def ci ama neex lan la changer sa vie ak lan la la andil waaw lamb moom tey jii ginnaaw yàlla yonante bi bu ma nit ñi xamee lambaat tey ginnaaw la yonante bi bu mo amé as lamb làmb moo tax tey bu ma bu yalla lamb moo tax ginnaaw yàlla bi tay ma aga nufu bo xamanteni international fu ma dem ñu tudd ma làmb moo tax. ma dem ambassade ñaan visa ñu mayma lamb làmb tax kon donc damay sargal lamb fonk lamb sa comprendre damay sargal lamb fonk lamb ak ñi nek sama ginaaw ndax man awma ñen yu sama bay fa lu ma toll dama koy wax mu neex ne na xare ku ma toll rek damay wax loolu kon je pense que ne dañ gën a jàppalante daal ndax tëngee yaatu na te ñi fi war a mën a jóg jàppale ñu si ñu bari na daal. Eh bien. bon waaw xam nga nit moom du wax li nga xamante ni moom la nekkal wala moom la si am mais demee ba si kanam eh, dinañ si gën a jàpp daal dinañ si gën a kii daal. tànk mbër des fois nit ñi dañuy wax ne. Mhm. ama ne waroon na mën a doon mbër mais tànk yi moo taxawul bu baax tànk yi dara amu ci. yowul gars yi lan nga leen di waaw xam nga ñoo ñuy wax loolu man am naa 19 combats deux défaites laa am ñoom bu waxee loolu du ma ko gëm ndax sama tànk yi may si laa doon professionnel donc loolu noonu waxin bu ñu amee combat dañuy entraîné funki yaa ko waxal sa bopp ndax doole naturel boobu léegi ama ne am na soxna. man non amaguma soxna. Mhm. Ah. Euh, kañ nga compté marié. mais ça dépend rek yàlla baax na daal bëgg naa ko nag du ma bëgg naa ko mosuñu tey am doom am soxna moom ma koy gis moom may gis bëgg naa ko donc saa bu ko yàlla tuddee rek may sabru yàlla may ma ko barke alxuraan ama neex est ce que ama neex en tant que il est reconnu nit ñi xam nañ ko est ce que ama neex dina def social di dimbali doomu aadama ah bien sûr ah bien sûr jullit mhm. lu ma am dama koy mais nak nit du toll fa di yor làmmañam ci mhm. lo xamanteni xamante ni mo wara am mom da nga ko boppal li ko do a boppal mhm. la nit bu lay tagam moom say mbokk la jitu est ce que amal neex mu ngi and ak ay ami d'enfance ba legui legui ni kenn ngi taxaw kon goye ngi ni taxaw mo suñu mag mo moonu yar nek xawa ba ñom la xam xawma ñen mel ma mhm. fi lan tukki ñew bëgg a do mel ma non Eh, est ce que amane tay bo amone dom dino nang mu nek mbeur non man mo suma dom du nek mbeur lutax da nga nek mbeur yow wa c'est que mbeur buñ ci dugg xalaatu won ñun xalaatu ñu won li mbeur du mo wax beure mo yaax yaax suñu jangale geej mo yaax suñu jang ndax biñu dem geej donc bobu beure xamugo ñu beure fi lañ commencé nak ne ci tafis di beure di beure ba yalla sotal lool tay doon mbeur beure dafa metti beure nu la ngay def beure lu la ngay def lool mo waral mu metti donc man lu ma ñëw si loo xamante dafa métti sama doom du fa jaar damay jaar si loo xamante ni maanaam jànga ndax tey donc mënuñu wax français mais loolu xam nañ ko te loolu yëpp tey ñàkk jàng mënu ko yóbbu donc man dem naa États-Unis ñi nga xam ne jàng dafa baax euh, olof fii la ñu Sénégal États-Unis boo ko demee doo am ko wax Sénégal doo ko wax olof américain wax anglais wala beneen xeet kon donc képp koo xamante ne mu mooy seetaan bëgg am a neex li ma lay conseillé mooy nga gën a fonk sa jàng ndax man dama demee dama am problème avant may miin li ñu xamante ni may miin seen langage sonn naa loolu yëpp lan moo ma ko yóbbu ñàkk jàng kon donc képp koo xamante ne mu mooy seetaan rek dama bëgg nga gën a jàpp sa jàng daal daal laa am si loo xamante ne. mais comme am fa jot a jàng xanaa GFM point sn di nga leen lakkal angale tuuti. waaw lakk ayca bisimilah. lakk angale rek you know you know what I'm talking about. yeah after you you come you gonna go America. that's good. Yeah, my friend, my sister, you gonna go. am gym. Yeah, I'm work out. Gonna go my house. Yeah, I'm sleeping. Eat. Mm. I'm très bien ama neex da làkk na angale nag. waaw am ngeen benn combat boo leen di négocier bëggoo ko dévoiler. Mm-hmm. mais kan nga xalaat ne war nga war a mën a bëri moom saison bi ñëw ci ñu mag ñi. parce que il faut nga dugg ko des grands. ku ma am baax na bi laa man taal ba sëñ Fan Fall laa parce que ba sëñ Issa ku ma am baax na ma yàlla xéwal na ma bëgg a yow ñaan yàlla ndax ñoom sama légui yow est ce que man nga ma wax lo xamanteni ni peut être mo nga bëggone yokk sa interview bi nga xamanteni mo nga amal ak gfm.sn lan ngay xalaat ci suñu site bi ma la wan sank waaw site bi ñaan yàlla mu yokk rek comme yeen melni yeen site en plus tamit xama ñu wax waa tënge ñu mobilisé wu jappalé nu quoi ndax nun ndax dañu mbolo moy doole sunu maam da naka wax jàppante leen tam tàppe xol yi mbooloo doole amuñu kenn ku lu tëngeej ak ah, mbaaw kon donc ñi nga xamanteni ñom la yàlla denk ñu am kom kom wala xel wala xam-xam nan ñu jàppale daal jàppale na bu baax te xam nañu ay ndaw lañ lii day jeex suñuy doom wala suñuy sët wala suñuy rakk ñooy ñëwaat rek nekkaat si yoon bi kon donc lépp lu ñu siy def rek na war a dafa war a rafet di gërëm sama supporter mel ni Matar moo jiite supporter yi di leen gërëm di leen sant ji góor ñi jigéen ay Mariane ay Ama Neex GFM di la remercier ok